nag moom nee na dafay door a am doom donc depuis une semaine mu ngi gis li nga xamante ne moom mooy deret di génn ci moom neena na dafay compter loolu moom temps boobu daf koy compter comme si dafa gis règle am wala ñaata temps la war a toog pour euh, pour mën a commencer julliwaat oustaz. tey rek ngeen di xam ne yàlla réglé na problème yëpp. wallaay <laughs> bu ko oustaz expliqué. jërëjëf Pape. Mhm. xam nga Pape ñaari façon ñaari façon deret mhm. la jigéen di gis te bokkuñu. Mhm. dafa am deret bu tudd dammul xaydi. eh waay xanaa deret ju foor la. dammul xaydi. boobu de deretu jam jam la xanaa. <laughs> dammul xaydi. <laughs> ustaas bi dafa baax. <laughs> boobu ban deret la. dammul xaydi. Uh-huh. mooy deretu règle. ah ok ok. mu am beneen deret bu jigéen di gis bu amee doom. Mhm. après accouchement. Ah, ah. boobu moo tudd dammul nifaas. ah dammul nifaas ok. mais dammul xaydi muy régle mhm. temps bi muy def ak jigéen. Mhm. bokkul ak dammul nifaas. maanaam bokkul ak deretu gësin bi ngay gis bu amee doom ba pare. deretu régle ci charia. lu mu gudd gudd gudd gudd gudd. mu set ak mu ñàkk a set du romb moo tax boo ko gisee mu arrêté ñëwaat dañ la ne dollil ñetti fan bul gaaw a julli comme réglé day ñëw ak a kon ñoom bu ñu gisee rek lu ñu julli non non yaa ngi dégg mu ne nag fan yi ngay dolli li fekk àggagul quinze muy ñëw di dem di coupé di ñëw del dolli mais soo yëgee ni nag toog nga quinze jours julli deret ji def na ak yow 15 jours. su boobaa même bu continuer di ñëw dangay sangu jàpp julli dem hôpital faju ji te xam ni nekkatul deretu règle. bu dee règle moo dépassé 15 jours. parce que règle du dépassé 15 jours ci charia. d'accord mais bu dee dammul nifaas nag. mooy deretu wasin. deretu wasin. Mhm. kooku charia nee na moo ëpp fan yu muy diire ka deretu règle. parce que deretu wasin ci charia mën na dem ba 60 jours maanaam li fekk yaa ngi koy gis gis nga ko 10 jours bul jaaxle mën na nekk gis nga ko 20 jours bul jaaxle mën na nekk deret ji continué na pap ba 30 jours bul jaaxle mën na nekk gis nga ko cinq jours bul jaaxle mën na nekk dem nga ba 40 dem ba cinquante dem ba 55 mën na nekk nga dem ba 60 xam ne tey nag maa ngi ci sama 60e jour charia nee na boo xëyee gisaat ko demal sangu ci te julli xam ne deret ji limite bi foofu la yem. maanaam deret jooju yàlla may na de may na délai ñaari weer. may na délai. deux mois yoo xam ni mën na ciy ñëw. nga bañ a julli pour mu bañ laa jaax maanaam li science révélé sax suñu borom wax na ko ci alxuraan bu yàgg. mu ne nag deret ji it pap noonu mu mën a nekkee longu séjour. Mhm. nee na jàppal ni it mën na nekk séjour bu gàtt. court séjour xam tax. Mhm. nit mën na am doom lundi. mardi mu sangu julli set. waaw am na ay jigéenu jàmbar mu tax boo demee ci téere bi bi mu la koy jàngal dani la walaw fii yow mi wi laa wilaadatihi irtasala mm-hmm. donte le sa jouru ngénte jour bi nga am doom. Mm-hmm. jóge hôpital jour boobu nga set. mu ne sangul julli ji xam ni mën na nekk. Mm-hmm. bu mu la jaaxal. mais quand même yàlla may na la délai bu guddoo am na ñoo xam ni. mën nañoo am doom huit ci suba. fekk julli nañ suba. waaw mm-hmm. loolu yàlla la ma naan avant tisbaar mm-hmm. ñu set. Mm-hmm. dafa am benn nitu yàlla bu nekk ci réew mi yaayam mëstafaat waxtu. xam nga kan la. kan la Cheikh El Hadj Omar El Fouti yu taal. El Hadj Pape Cheikh El Hadj yu taal. maam mu taal madame Gaydo moom rek la yàlla may. Mm. moom Cheikh Omar mu gane àddina. veeyu mm. koor. Cheikh El Omar dafa juddu. ñu xëy suba mu war a nekk koor mm-hmm. xam nga liir li mu baaxoo mooy nàmp mm-hmm. mais Cheikh El Hadj Omar bëccëgu weeru koor buñ ko bëggee nàmpal du nàmp day mm-hmm. woor léegi su dog jotee Cheikh El Omar day nàmp ñu xam ne dog jot na mu dem ba waa dëkk bi bu jant bi lëndëmee dañuy ñëw di laaj ndax liir bi nàmp na wala nàmp ndax ndog na ndax Cheikh El Omar moo leen daan orienté kon yàlla dafa yor ay cëram yor ay mayam mais lu ci nekk nag mu leeral ko. Mhm. parce que diine ji nekkul ay làmbatu. déedéet du la du làmbatu de. texte la yoo xam ne dañ koo bind. Mhm. yonent bi ñëw jàngale ko. Mhm. yonent bi ñëw ba dem. ñi ko fi wuutu woon jàngalewaat ko jamono di dox ba agsi ci ñun. kon ci charia. dammul nifaas dafa am. dammul di dafa am. lu ci nekk ak temps lu ci nekk ak heure bi muy set. macha allah. loolu leer na soxna Kya. beneen question leer na jeex na li moo nekkoon question yi.